maa ngi dem si doomu ginnaaw raay. waaw loolu am na. maa ngi dem si doomu ginnaaw raay si dëgg la maa ngi dem si doomu Ndiaye de Pikine. loolu maa ngi dem si doomu Kopat. yàlla sadina Sadio avec Sadio def caramo avec Sadio ci li ngay wax da nga ko maîtriser ndax ñoo la yar ngay xale bu ndaw may ànd ak Thierno Kane ak waa ginnaaw ak yëpp li ngay wax ni kon kenn nettalu ko kenn waxu la ko da nga koo fekkee waaw kon non de naa lool ci yow ku yokkul da ngaa wàcc wax dëgg yàlla yaa ngi yaa ngi yokku. mais di ñaan yàlla rek euh, mu continuer ndax war naa dégg daale war naa dégg roi des arènes ndax euh, xale bu yaru la xale bu am jom xale bu gëm boppam la bu gëmuloon boppam du ma jaral paas 1000 francs di jóge Italie di ñëw kon nag mais di ko ñaanal yàlla moom ndam. mais xam nga examen juin lañ ko loolu moom lay def. mais incha allahu rabi tey jii moom. examen bi euh, dañ ko ñaanal yàlla mu jàll examen. amiin parce que waaw mais comme tout père. Euh, papa yëpp. waaw sa doom di bëree. stress bi ngay am bi ngay moom rek laay am. non man dama koy seetaan parce que après tout je ma jël. mais yow dama daje woon ak yow. pour deux jours waaw. moom boo blessé nga ne daa daw. mais moom loolu du boobu na. yéen ngeen blessé ci war. xanaa amaat na day daw yoon. mais Iba Kane. ñetti pronostic laa joxe dama leen di woon kenn du ma faar. Siteu Tafa Sow Papa dama len di woon Siteu da koy dal nga and ñoo and ma ko xam Fajar mi di promoteur international euh, combat euh, Ama balde, ñu reporté ko mok modlo ba boy booy ñaa Balla Gaye ba ma nee ñaa da koy daan kenn gëmuma man len kenn duma far ben combat rek mo ci des ben combat ci des moy Ama balde euh, modlo tay inshallah rabbi ndam bi gën la jëm bantal sa loxo ken duma vaar des na Eumeu Sène Tapha Tine bi gëna a yomb ci lamb jaangi nonu te ñuy ñaan yalla nak yalla may ñun ndam lu sedd buy mu Eumeu sen xam nga Sénégal dafa naxare waxe so waxe dañ nan da nga far mais modlo bu ne dem ba roi des arènes jeexal na euh, way moy roi des arènes bëri na combat bu ne def na lu ne kon c'est un grand champion. mën naa bëri ñeme na entraînement. gëm na li muy def mais nag euh, l' expérience face à la jeunesse lay doon. Ama Baldé day day jàpp. Ama day jàpp te bu jàppee day te li gën a garaaw ci Ama mooy ay loxo lay bëree man maa wax li tey lii la da koy bëree li gën a jafe ci làmb Ama day bëri loxo. attention motax moo lamb ji du lamb ji lamb ji diis du lamb ju métti waaw motax a suivre a suivre yag yag yag yàgg Pikine Pikine ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi muy Boy Niang Ama Baldé Eumeu Sène di euh, seen mag ngaraaf mii bi ñëw ñoom ñëpp ñoo bokk ndey ak baay bu kenn amee combat ñëpp am nañ combat waaw moo tax ñëpp actuellement nekk ci ginnaaw moom mii bi muy def open press bërki dem Xaadim Ngom rakk Eumeu Sène Allemagne la jógee ñëw ndax deretam la Eumeu Sène ñëw kon ñun Pikine Pikinité lañ gëm message ans de waaw loolu da ngaa ba pare nekk kay non neex na ma mais bu ma njëkkee simb Tiwaawan. Tiwaawan sama sëriñ sëñ Mansour si jox ma biteel ma dem simb sa mel ni màggal bu tas boobu marqué na ma lool wax dëgg loolu yàgg na yàgg na je me rappelle mais ñu xam ne man seen doom la xam ne man Tiwaawan laa dëkk sama juróom-ñaari maam ñu ngi ñu ngi ma ñëw fay di taalibe Cheikh comme ñoom sama sëriñ waajal ma loolu neexoon na ma lool lool lool. dama taaw damaa naaw keroog. barke Rasulullah dana ne simb ba naaw am Diop ngañ ba Yuga Cissé Ousseynou Ngom Pape Ngom manager euh, Alla Bata Sakho Ndella ñi mu dem si yàlla Bata Sakho mel ñoo àndoon si biir soosu Ousseynou Ngom ñoom ñëpp ñoo àndoon ak Kéba mu ndaw amoon naa vingt et quelques personnes waaw waaw Pam Ngom moo ma doon tëggal ak Kéba ñoo ma doon tëggal ça yaa ko mais ku nekk am na hymne national man mooy sama carte d'identité waaw dëgg yàlla sama carte d'identité mais alhamdulilah rabil alamin alhamdulilah rabil alamin am nañ ci xaalis ndaxte boo ci amee nit am nit ñu baax. bari na tournée yi ma daan def Europe dañ may fay lu bari mais fii tamit dañ ma def mais lamb ji si ma naa fi ñu fay ma un million ci benn bis spectacle fii Tafa Gueye Tyson Tyson Bombardier bu ci nekk brique lañ ma fay waaw moom ma ko fayal du ma ñëw waaw boobu xaalis ba bariwul woon waaye euh, succès ba succès ba bari moo ma yóbbu fu ne ci àdduna bi. xaalis ba bëri waaw ah, mais loolu la loolu loolu chef d'œuvre la chef d'œuvre la. chef d'œuvre la Youssou Ndour nee su ma ko defoon ak moom damay pare bàyyi simb. bu ma ko defoon ak moom. damay pare bàyyi simb ndax dina ma xam dina ma fay loo xamante ni damay pare fere gulaay. waaw mais damay kontaan. la kontaan ndax def loo xamante ni vingt ans après. muy neex muy neex vingt ans après ay xale di ko gis di ragal te xale il faut moom ragal. Ah. xale il faut moom ragal. loolu moo tax simb baaxoon simb nekkul loo xamante ni gars yi dañu ko war a foowee. nan nga ubbee <laughs> ma saxar rek la maa la wax loolu loolu loolu chef d'œuvre la dootul amati jàll benn kër dootul amati yàlla yàlla bu def amin waay yàlla ko doom loolu yàgg maa la wax loolu teet ba loolu loolu démb lu tey li maa la wax